Bienvenue sur Salam Vision. Hey. jërë ngeen jëf géej ci mbambulaan jëlatinay bakkan ci réew mi l'observateur nañu ci caaroy géej fa la jëyee jaame ubbil yéenekaay bi ñetti mool Malikaan Njaay amoon juróom-benn fukkeet ak ñaar ak doomam Limaamu Njaay ak beneen waay bu ko doon liggéeyal ñu naan ko Mamadou Mar journal bi nañu ci ay témoignage ñu jëlee ci jarbaatu waa moo leen leeral ne keroog àjjuma la ñu fi jóge woon dem géej seen gaal ga xar biir géej xotti gaal yaak néew ña ci des ñoom ba léegi kenn gisu leen du seen jëmm du seeni néew kenn ki mu takkee jabar ak léegi ci ñetti semaine ca lay toll libération jëy yaati ci géej gi ci ñetti mool yu demoon géej kenn ki di borom gaal ga Malikan Njaay moom la ñu gis ab néewam ci tefesu Ngor gi ñaar ña mu àndaloon mu di doom ja Limaamu Njaay ak ab apparentam di Moodu Maar ñoom kenn xamul fan la mujj li des ci xaarite gaal yi ñu duggoon journal bi nee nañu ay nappkat ñoo ko foro ca keroog àjjuma ci la demoon géej ca seeni mbokk gëjee demee géej duñu gis gi ba musiba yu mel nii bi ci xët mu wax ne ca caaru géej njabootug lëmma des ci géej gi ci anam wu yéeme tamit Njaay tolloon ci juróom fukki ak juróom-ñeent ak doomam ju góor ju ñu naan Limaamu Njaay tolloon ci fanweeri at ak juróom-ñeent yéenekaay bi dolli ñu ci ne fii ci Sénégal at mu yàlla sàkk lu jege téeméeri mool ak ñeen fukk danañu des ci géej gi ñu des ci géej gi ba léegi ak koom-koom ga di économie maritime Sud Quotidien nee nañu yëf yo doxatul te li ko waral ñi yëngu ci napp gi nee nañu moo di accord de Sénégal renouvelel waa Union européenne Moustapha Dieng bu syndicat des pêcheurs autonomes di leeral ci yéenekaay bi ne accord de yi te bu ñu jàppale woon nappkati a yi fa nekk seen obligé da daan dox na mu waree pare waaye fan yi ñu weesu dund nañu fa loo xam ne seen digg gambien yi budul woon ak takk dere kon tey kenn waxatu ko daanaka seen matériel yépp la gambien yi yàq yii dañu ko taal ya ci des ñu tojate ko li indi coow lekk nañu dundee coow la ak la ñu ca yàqule lépp ñu ngi koy nittali ci biir l'observateur observateur yi observé ak saytoo ko natt tolluwaay liberté ak démocratie ci àdduna bi di waa Freedom House réew mi quotidien nee nañu rapport bi ñu def li mu wax moo di suñum réew di Sénégal liberté gi sooxe na fi ñu nee nañu kay dafa dellu gannaaw ci diggante 2017 ak 2020 ci la waa Freedom House def seen ci la ñu waxee ne Sénégal génn na ci langu fukki réew yi liberté ëppee doole ci àdduna bi jóge na ci réew ma libre teere ji mu xaw a libre liberté provisoire ngir ñoom Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène Birame Souleye Diop ak Abbas Fall mi ngi aju ci loxoy attekat bi latir bu troisième cabinet ak juge bu huitième cabinet ñoo leen mujj mujj auditionné ndax doyen des dafa am aw yaramam la ne moo ay fan a ngi fan yi géopolitique bi jax na anki dina kay moo ko bind ci xëtamu njëkk ba xamal ñu ne coowal Sweet Beauté dafa yi opposition bi ci jamono joojeet waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi defaruwaat ngir di xeex ba mën a dégg na ne ñu ne kii di Karim yónnee na waa Parti démocratique Sénégal fukki watay 88 ak juróom benn ngir tournée yu parti bi war def Vox Populi jël yoonu boppam di wéyal ay wisitam Khalifa Ababacar sàll moom it topp ay tànkam ak i tournée daje yi di gën di takkarnaase ci biir opposition bi ñi nekk ci nguur gi di gën di defaraat seeni toogaay la si nekkaay gis ne kii di Macky Sall ay partisan ñoo ko nar a yàqal ndax communication bu bon bu ñuy def ak wax yu ëpp yu ñuy faral di dégg ci ñoom ñu dëppaat dellu ci suur suwa ca diwaanu Mbàkke yéenekaay bi nee nañu ay nit yu fa amee ay facture ndox yu ñu fayul seen o yónnee leen ay agent ngir ñu couper leen waaye ñoom agent yi ba ñu yeggee bëgg couper ndox mi askan yu ñoo génn duma ba yàlla fóot seeni sagar bismillah musiba mbaaba ku ma am na de terminé yéene kaay ne musiba ba day waaw ca caaro géej la amee allahu akbar benn njaboot goo xam ne day ca biir géej ga la ñu des Malick ak Njaay mi la toll ci juróom fukki at ak juróom-ñeent waaw dama ne la moog doomam ja di taawam bale di limaamu Njaay fanweer at ak juróom-ñeent ah, ah dama ne la ca géej la ñu des allahu akbar te néewu baay ba day ci ngor la ñu ko gisee démb daal di koy suul kon démb lu tolloo juróom benn ci ay nappkat day nee na ñu may réer biir gox ba yéeni kaay dee média gi ne gi la waaw lu tolloo téeméer ci ay nappkat day bu ne ne ñooy dee ca biir ndox ma allahu akbar la ilaha illallah libération yi ne kaa gaal ga day xootu xootu gaal yi waaw ca wakaam gële lañ ko faree ay nappkata ko def waaw Moustapha Diop mi nga xam ne daa bokk nag ci kuréel gi njaboote kon nappkatu cosaan yi lée nee na gis nga jën ci boppam moo amatul ci biir géej gi la sabab lu ni mel nag mooy bateau yi nga xam ne ñoo jóge ca bitim réew gële léegi nag nappkat yi dañuy dem ca biir géej gi fa gën a xóot gi daal dina nga xam ne moo biir ndox mi day dematul dikkatul dee na yàgg na ay dégâts collatéraux la def de ca jamono joo xam ne nag suñu nappkat yaa ngi dee de maar di taali waaw man nga ma sa gisee ay arrêté yoo xam ne ñoo ëpp doole kon ay décret waaw dama ne la seen war lool sénégalais la ñuy dund kon ci wàllum démocratie mi dina lool lool lool ubbil source a nañu sénégal day moomatul boppam de maar di taali bu ñu sukkandikoo ci rapport boo xam ne day freedom house waaw ci lu jëm waaw dama ne la Sénégal moomatul boppam Le Quotidien yéene kaay ne Sénégal kay génn na na ci fukki réew yi nga xam ne kon ñoo doon tiitaru Le Témoin yéene kaay ne te moo ni gis nga lu yàggul waaw Sénégal royu kaay la woon fii ci daanuk Afrique day ci lu jëm ni ci wàllum liberté ak démocratie waaye tey jilee waaw ña nga ca juróom-ñaar fukkeel jàpp juróom ñet fukkeel ak juróom-benn ci ay place la ilaha illallah Dakar Times ne xam nga loolee li ko gën a jur mooy wàllum góor jigéen gi lé LGBT yi waaw ñàkkaloo na ay point Sénégal de parce que lu jëm ci seen wàllum ak ak yee nee dañ leen a toppatoowul góor ñiy sëy seen biir jigéen ñiy sëy seen biir ak ñeneen ca digg ba waaw donawaar ca jamono jooje enquête yéene kaay nee na atu politique bi de ma ngay jax nag dëggantaan parce que waa Benno Bokk Yaakaar ña rey seen bopp ko góorgóorlu ngir mën a dellu siwaat coowal suite ba te gilee moo daal di yee opposition ba waa M2D ñooñu moom léegi ñooy organisation bi nga xam ne nag ñooy star ñoom Cheikh Tidiane Dièye dama ne yi kay ci jamono jilee Karim Wade day waaw ngir ñu amal seen tournée ñëf ku mënul boobu lu yàq yow ah. les si ko yéene kaa ne Macky waaw moom lancé waat na dialogue national ba laa la wax ñaari weer la may gaay ngir ñu yeggali liggéey ba yéene kaa gi ne waaw nee nañu professeur Issa Sall na leen delloo poste député ba laa la wax maar day taali waaw waaw parce que parti wu Moustapha Sy bi ne njiital Moustassidine wala Moustassidati waaw daal dinañuy nag Moustapha Niass ngir professeur Issa gi day créer parti politique am laa la wax la dimanche bii di ñëw waaw Déthié Fall kay bàyyi na Idrissa Seck soow ba demee ca mburu la ko Déthié bàyyi exclusive yéene kaa ne Abdou Diaw tamit day bàyyi na Ousmane Sonko mi lé ah waaw parce que waa ji day nee na gis nga réew mi ah du tàkk ngir wàllum góor ak jigéen laa la wax boobu benn ñaar te gis nga deuxième vague boobee Ousmane Sonko di wax am ci mim réew parce que comprendre ni lañ demee laa wax critique départ de du sedd te gis nga ñi nga xam ne sax ay observateur la ñu waaw nee gis nga président Macky Sall mi lee bàyyiwul de Macky Sall bàyyiwul benn yoon laa la wax parce olof Njaay nag lu dee mbuum des ka ba yéene kaa ne waaye xoolal ma manifestation yi bañ commencé ba léegi ni lée ministres yi directeur généraux yi daw làqatu ji léegi nag ñi ngi commencé génn ndànk-ndànk ci seen ruq yi ñu làqatu woon ñoom ministre Macky Sall yi ak dese laas man kay maa lay expliqué nag ñii ànd ak Macky Sall ni ñuy yàqalee seen leader bi la di Macky maa di taali waaw ci ay wax yu ñaaw wax yoo xam ni mën naa taalug réew ak communication bu bon xoolal li Aliou Dembourou Sow wax su Ousmane Sonko bëggee xeex dana ko am xoolal maître Malick li mu wax yi xam ne ñoo dee ci manifestation élection ñu ci gën a bëri yëpp ci Ndakaaru Njaay ja Joob ñi ànd ak Ousmane Sonko leen rey allahu akbar la ilaha illallah laaste xam nga ni ñu dañuy yàqal Macky sal de looloo tax nag ba sal Sall kontaanul ci ñoom benn yoon ni ñu géré coowal Adji Sarr gi lée Macky Sall kontaanu ci déedéet waaye tamit lam leen dénk ngir ñu liggéey ko Macky Sall kontaanul ci ñoom de déedéet 24 heures yéene kaane moo tax it maître Malick Sall ministre de la justice waaw waa Pastef ko lu mel ni xeme la tey mooy yéene kaane waaye xoolal ma xam ne kon dañoo dem ba ca fayoo ji dóor yi ñu leen dóor te manifestation yi doon am ci Ndakaaru Njaay jël Jóob ak sa saalumuk réew ma Ziguinchor ak la ko wër ñoom ñu dem ca diwaanu Fuuta gale moo tax it waa Fuuta nee nañ leen eh vague corona bi daal gis nga su amaatee ca Fuuta googee ginnaaw yàlla ñoom Farba Ngom ko fi indi ndax seen meeting mi nga xam ne kon doon nañ ko amal barki démboo Njaay source aane benn délégation xalif général murit yi day ci Ndakaaru Njaay jël ji lekkoon ci talaata waaye xaalis añ cay xeeñ de Serigne Bass Porokhane waaw normalement waroon naa bokk ca réunion boobee ak segu juróom fukki million laa wax la dimbalee njabootu ñi maanaam ci kaw gàttal mars 2020 ak mars 2021 Serigne Mountakha Mbacké day lu tolloo ñeenti téeméer ak juróom fukk kon ci ay millions génnee na ko ngir dimbali askan wi lée œuvre ñaari téeméeri million ci xeexu corona bi million ngir jàppalee ko jumaa ca marché andi ko di liberté provisoire tey mbir maa nga ca taabalu atekat ba libération yéene kaa ne ba ñu war a ñoom kii mari Sagna ak ñoom àndal démb day waaw atekat yéene ca troisième ak huitième cabinet ñoo remplacé doyen des juges Samba Sall parce nee nañ Samba Sall mi la yaram bi daa sutante lu ëpp semaine a ngi nii lekkoon mu feebar day di sëy day meeru njaareem li maamu laa ci la solo yéene kaay waaw ci lu jëm nag ci wàllum fi nag ci biir réew mi la nee na yéen seen a a cëru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 Bienvenue sur Salam Vision.